alaykum mbokk internet public SNTV dal leen ak jàmm mu démission bi nga xamante ni daal di nañ ko bu baax a baax mi di Cheikh Omar Anne nekk ki nga xamante mi ngi gouvernement bu président Macky Sall bi fi woon moom mi gannaaw bi nga xamante MNF daal invité foofu si tv muy xamle bu baax a baax mi daal démissionné maanaam bàyyeekoo na bokkatul benn yoon fi nga xamante ni moo di APR Benno Bokk Yaakaar mu ràññee nañ ko bu baax a baax ñi képp ki nga xamante ni àndaloon nga ak président Macky Sall ñu gis ne benn benn kenn ku si nekk yaa ngi xool ak na naka ngay def ngir jéem ber sa yoonu bopp wala nga ko foofu noonu sa APR rawatina bennoo bokk yaakaar gannaaw bi nga xamante ni gis nañ ku sës rëkk si président Macky Sall di wuyoo si turu Aline Sall moom mi gannaaw bi nga xamante ni ko woon foofu noonu sa APR ak bennoo bok yaakaar keneen ki nga xamante ni daal di nañ ko ràññee mu wuyoo si turu Cheikh Omar Anne moom tamit daal dina bàyyi ko foofu sa APR ngir xam bu baax bes ni ki mi ngi ber yoonu bopom dal di dem fi nga xamanteni euh, APR Rawotina, Benno Bokk yakar mu melni dal euh, li nga nañ ki président Macky Sall kenn ku si nek def pour bàyyee ko foofu APR Rawotina, Benno Bokk yakar mbokk internet yi wooyu leen di ñu top su pour am plus d'informations sur Public SN